arbitre bi na attention Reug Reug attention Reug Reug ma ngay dem Reug Reug ndeysaan xeex Reug Reug bombardier Reug Reug ma ngay accéléré Reug Reug ma ngay accéléré Reug Reug ma ngi mel ni ku bëgg a dem mais bombardier mi ngi ne tekk di ko déglu Bombardier Reug Reug dafa mel ni coup bi lay xaar Bombardier ak Reug Reug ndeysaan Bombardier dagg na lew tooba Reug Reug ma ngi cokkaas loolu yëngalu ko moom Bombardier loolu yëngalu ko ndeysaan dafa mel ni ku bëgg dem sama xel ñaaw na la la la bu rafet waxoon Bombardier mi ngi na tekk di ko xaar ñaari mbëri ñoom ñaar kenn xameewu leen li kenn xameewu leen lii ndeysaan Bombardier danaan prix mu direeku sa kaw wala dañoo rusante attention songu na ko Reug Reug songu na ko attention mu ngi koy jéem takk Reug Reug mu ngi koy jéem takk Reug Reug ma ngay jéem a takk Bombardier attention Reug Reug Bombardier Reug Reug Bombardier ah ma ngi koy faxet attention tegal na ko seetaan na ko laa ilaha illallah Reug Reug daan na Bombardier ba mu jaaxaan oh Reug Reug daan na Bombardier il est dangereux sa gosse il est dangereux Reug Reug jinne la jinne la jinne la jinne la jinne la jinne la oh Reug Reug jinne la jinne la jinne la waaru na san lamba ngi noonu ndeysaan Reug Reug jinne la ndeysaan ah ma ngi koy félicité voilà ma ngi lamba noonu la fair play ndeysaan Reug Reug daan na ki nga xam ne mooy Bombardier jël bu rëy ndeysaan